waaw fii moom comme niñ ko daan defee rek ñun ku ne xam na ne naka ci organisation bi daan def organisation bu sel, la bu mucc ayib la ginnaaw bu ñu gan gi ba dalal ko ba pare ci barab bi nga xam ne ni barab bu sel lay doon di ko top toppatoo bi nga xam ne bu war la mu mel ni différent bi ci am ci màggalu ren gi ak magal yi daan jàll mooy comme ni nga ko waxee rek li nga xam ne ni moo xew te ñun ñëpp ñu ñu gisandoo ku ne xam na bu màggal masaan jot ni ñu daan programmer mooy daf doon am ay réfectoire ci biir kër gi nga xam ne salle bu mag la boo xam ne waxtu xewlu bu jotee ñuy dugg ci appartement yi génnee gan ñi ñu ñëw daje toog xewlu buñ paree ñu saafonte ki jóge Tiwaawoon rek ki jóge Njaasaan ak ki jóge fee gisante ñu leen sax ñu bokk benn bool bu ñu xewloo waxtaan buñ paree dugg seen ay chambre loolu daan créer ab benn relation boo xamante ne ni relation bu am solo la doon doon waaye contexte bi ñu nekk laajatul loolu Euh, war nañ fekk gan gi ci biir néegam yóbbul ko fa mbooleem ay berndeem ba mu bañ ba nga xam ne mun naa bañ jaxasoo kenn wala boo képp ku muy jaxasool day fekk gan gi ci boppam moom mooy xemem jaxasoo kooku bu weesoo loolu itam euh, barab yi nga xam ne moom lañ fa am muy appartement yi lu mat ñeenti appartement wala juróom ci biir kër gi fu ci nekk itam bàyyi nañ xel wàllu hygiène ba fa nekk ndax set moom dafa bokk ci euh, loo xam ne nii ci jullit bu nekk daf ko daf cee war a góorgóorlu rawatina ci situation yi ñuy dund fi mu toll nii rawatina nag fi ñu nekk ci biir kër Sëriñ Tuubaa nga xam ne ay kilifa ñoo fiy daje mbooloo itam ñoo fiy daje loolu li ci jiitu moom mooy ñu waajal suñu bopp ñun ci wàllu set ba pare soog ak accueillir gan ñi mu mel ni euh, lu bari ci ay masque li fi ñëw ci masque kenn xamul lu mu toll li fi ñëw itam ci ay gel alcool sel kenn xamul lu toll lépp itam pare nañ pour distribuer ko jox ko gan ñi ak wàllu saabook yëpp pare nañ pour jàppale ci nit ñi ba nga xamante daal benn jafe-jafe duñ ko am te nit ñi itam danañ ñemewante ci seen biir ba nga xamante ne ni yaakaar nañ daal benn jafe-jafe du ci am. sàmmonteeg li nga xam ne moom la docteur yi wax loolu mooy sababu loolu yëpp rek ndax boo xoolee ñu ëpp ci suñuy éléments yi mën nañ ne ñëpp. tak nañ masque yi xeyna man mi nga xamne may wax yow te takkuma ko itam xeyna na la loo sama jurin xam nañ ko ci man ba nga xamne suma ko defé mën na ma galankor ba lima war bëggal a liggéey ci magal gi duma ko liggéey war waaw élément yi nga xamne ño yoré walu bernde yi ci fi ci ci kër gi ci magal gi 135 personnes la 135 personnes yi dañ ko séparé 85 personnes mo dem daru marnan ci ko seigne touba gi nek foofu li ci dess dess fi parce que kenn ku nek xamna ni appartement yi nek daru marnan mo ëpp appartement yi nek fi waaye lépp benn la ndax boo xoolee par jour dañuy xam nombre gan yi nga xam ne ñoom ñoo a wala nombre gan yi nga xam ne ñoom ñoo fi war a reere léegi nag appartement bu ci nekk tànn nañ équipe bu mat cinq personnes kenn koo xam ne moom moo jiite appartement boobu ñoom ci appartement bi rek la ñuy féete ngir seytu gan gi toppatoo ko di ko jox mu lekk di ko jox mu naan di ko attaayaal bu gan gi soxlaa yónneen sax euh, élément boobu la yónni ba gan du manqué dara noonu lañ ko partagé par appartement appartement bâtiment bu ci nekk teg nañ fa boo xamante nii élément sécurité lay doon boo xamante ni pour nga ñëw dugg ci bâtiment bi dina xam yow yaay kan dina xam ban délégation nga bokk wala yow ngay ut ci bâtiment bi loolu itam ñu ngi koy bàyyi waale xel lépp rek ngir waale nit ñi nga xam ne ñooy dal ci bâtiment bi ak seen ay bagages ak seen jëmmi bopp ndax kër gi dafa doon loo xam ne itam du kum neex rek ñëw dugg booy dugg am fooy jaar ndax suñu mbokk yi xam ne ñooy yore wàllu accueil bi mooy waa xitma ñoom ñoo yore wàllu accueil bi tey bu délégation bi di ñëw ñoom ñoo lay accueillir dalal la waaye ñoom ginnaaw bu ñu la dalalee ba pare dañu ñëw wax ñu ne délégation sangam dal na ci sangam sambur sangam ñom paré nañ ci gan gog ñoy top to gan gi ba ni gan gi di génnewaat fi di di ñibi kon pour nga ñew dugg fi wala pour nga am fi sambur pour dal fi yombut faaw fay am foy jaar li ëpp ci ñi fi dal nak moy délégation religieuse yi nga xam ne ñoo jóge si yeneen tarixa ak yoy ñom ñoo fi ñew di fi dal bu dé délégation politique yeeg yoy ñoo mom dañuy ñew rek ziar señ bi tok buñ tombé ak añu jox leen ñu añ buñ ak reer ñu jox leen ñu reer waye après dañuy dem waye daluñ fi waaye ci biir kër gi mën nañ ne délégation religieuse ñom ñoo ëpp luñ fi luñ fi dal waye dal pour dalal xel nit ñi jëmm yi nga xam ne ñoom lañu tànn dénk leen liggéey bi ay jëmm lañ yoo xam ne waajal nañ leen ci yar waajal leen ci teggin ci itam nangu liggéey ci itam nangoo xejoo lu baree baree bari ndax gan gu nekk la ñuy am gan gu nekk la ñuy gis waaye nag danañuy suufeel suñu bopp ngir jëmmi Serigne Touba ba lépp loo xam ne nii jànkonte nañu ak moom ci metti ci jafe-jafe dañ koy muñ ngir liggéeyal Serigne Touba moo tax ñu koy def te kon ku ne xam ne ni bés bi bu yomboon du du sëñ am lii ay xale yu ndaw nga fiy fekk ñoom ñoo koy jox lekk te xam kenn ku ne xam ne jox nit bu lekk moom daanaka loolu yombul jox lekk koy jox naan kon xale yooyu waajal nañ leen muy daayira wilaya bi nga xamante ne nii ñu ngi bokk ci benn fédération bu ñuy wax fédération groupement religieux culturel disciple de Cheikh Amadou Bamba nga bu mag la bu yaatu ci Sénégal te Serigne Cheikh Gaïndé Fatma sosoon ko sëñ Mbàkke Soxna Lo ndaw ñi tuddi leen ay wilaya wilaya yooyu tey mooy ñii nga xam ne ñoom nga fi gis muy sol ñuy sol baxa ak ku nekk xam leen ci wàllu organisation 2008 ba léegi nag ñu ngi yore organisation bi fii ci kër gi te it mel na ni heure bu ñu àggaatee ci màggal rek jëwriñ yi kilifa yi soññaat ñu si dénkaat ñu liggéey bi kon jàpp nañ ne li ñu def mu ngi baax